Euh, bi nga xamee ne euh, élection présidentielle yi juboon na. en hmm. deux mille en deux hmm. ñun suñu mouvement citoyen alliance bu la dañ na woon bu élection yi passé hmm. nañu nekk parti politique. ak nu mu munti demee bu Ablaye Wade gagné bu gagné wut ak mais ñun màgg nañ màgg boo xam ne dañuy nekk parti politique. nekku leen woon di préparer wu au sud régime Wade. non boobu ñu ngi woon ñu ngi doon jàppale régime Wade.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 Si le président Macky Sall bi il fait, ton palais ngi a ay premier jour palais. Hmm. de la république je naa wax Macky man la recevoir comme homme politique dama suis ba ngoon bi ñu suba laay def congrès parti président Macky Sall hmm. bureau ma parce que vraiment sama xarit le de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 d'accord man ki nga xam ne moo jël réew mi. dama am moom jàmm am moom bokk ak moom vision. Hmm. ma xam ne ponkal la ndax fi mu jaar. ma ne ko dama koy jàppale jàppale suma réew. d'accord yaa ngi koy xelal tamit ñu nekk ñu nekk ñu nekk euh, parti. Hmm. mais dañu ne ñun op nekkuñ opposition. Hmm. Euh, euh, parti bi au pouvoir la jàppale. mais bokkuñu woon benn boo ko yaakaar dans un premier temps. dans un second temps lañ organisé.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 di waxtaan ak mom si yenn dossier ah, waaw waaw sa yuma soxla soxlaa. Hmm. woo ma laaj ma suma xalaat dinaa ko jox ci nu gëna gën hmm. lima gis tay ci Sénégal muy muy dox. moy hmm. la coalition Benno Bokk Yaakaar ak la majorité présidentielle ñoom laa gis ñuy ñuy dox di di di doxal évidemment euh, war ku ñu wara a xel moy askan wi. opposition bi nak population. opposition bi opposition bi nañ opposé wu opposition je ne manque pas de respect à l'opposition. Hmm. je suis un homme responsable je ma le Sénégal a une opposition il y a une opposition que mérite le Sénégal le Sénégal aussi n'est pas un pays euh, tellement violent. Hmm. c'est un pays où il y a beaucoup de républicains. moi je considère que les nga sont dans l'opposition c'est les républicains.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

mais coalition la opposition la ah. opposition la mais je lui souhaite bonne chance. Khalifa Sall ngi mais nous